asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu lay nuyu. nuyu bu sell. di nuyu mbooleem muqaddam yi nga xam ne fekk nañ leen fi. di nuyu itam. mbooleem taalibe yi nga xam ne fekk nañ leen fi ak soppe yi. góor jigéen. mag ndaw. bés bii. bés la ci bési yàlla yi. bésab cant la itam danaa wax la Mawlana Cheikh al Islam Alxaaji Ibrahima Niass radiallahu anhu waxoon keroog ba ñuy sant zaawiya ba ca ña seen nee na kanam yii fi daje dana néew ci taarix ñu dajeaat ndax kii ci suma càmmooy sët si Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu la Sidi Mahmoud la tudd yaa ngi gis fii alaaji baaba ma nga jógee ca Tamali ci réewi Gaana yaa nga gis fële ci sama kanam Malam Haruna Rachid jógee Kano ci réewi Nigeria da nga gis ci jataay bi itam waa kër bàyyi bi ñu ngi fii Serigne mbay Niass waa kër Seydou Aliou ñu ngi fii sëriñ Mbaye Cissé ak Seydina Omar Cissé mbokkam da nga ci jataay bi waa kër Serigne Mbaye ci seen bopp El Hadj Mouhamed Zeyna boo ngi nii ci sama gannaaw da nga ci jataay bi itam waa Kaduna yi lawal maalami maalam Baye ak Seydi ñoom itam ñu ngi jataay bi. Mouhamad Cissé ak Baye Rakkam sama doom ñoom itam ñu ngi ci jotaay bi alaaji Pata Thiam alaaji Pata Thiam itam ñu ngi ci jotaay bi ñu ñëpp nag tey dañoo ñëw ñu ñëpp nag tey dañoo ñëw Samba Niass mii limaale wu ma ko ndax dama ko jàppe nag ci affaire bi la bokk ci ñi ñu fekk si la waaye moom ñoo ñu na ànd e moo ñu taxaw itam nañ dem nañ dem nañ dem bañ dugg ci oto yi e Baye Thiam mii nga xam ne itam moo amee rajo Medina Baye FM nga xam ne li ñuy wax ne nii ku ubbi sa rajo ca dina da ko dégg mi ngi nii toog di amee rajo bi Babacar gannaaw nuyoo ak sant yàlla dolli ca lañ santoon di ñaan doon ndolloon daay man ñi ngay ndokkeel itam di ndokkeel mboolem ñi nga xam ne fekk si nañ leen ci jotaay bii place bii keroog ba ñuy teg xeer wu njëkk wa invité woon nga ci ñu ci ñëwoon nañ ñi ngi sant yàlla itam bi ñu mayee ñu dund ba fekkee ubbite gi wax naa barki dem ca gàmmu ga ne aarifu billahi xolam wala xelam wala itteem du aju mukk ci lu xam ne narta am lépp lu aju ci sa mi rek lu yàlla nara a amal su nekkoon ca gannaaw aras ak yàlla ga yàlla dina la ko wàccel fii ci suuf ñu ngi ndokkeel bu baax di ñaan yàlla julli guñ fi julli yàlla na ko yàlla nangu di ñaan yàlla wasifa wuñ fi wasifa walla sikkar ajjuma buñ fi sikkar ajjuma wala wirda wuñ fi wirda wala alquran juñ fi jàng ñaan guñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu yàlla na nekk doom ca zaawiyatul kubra ca faas yàlla na nekk doom itam ci masjidil jaamia masjid madinati cheikh al islam alhaaji ibrahim Niass radiallahu taala anhu nga xam ne julli gu ñu fi julli rek ñi ngi séentu ne am yaqiin ne yàlla nangu na ko zaawiya bii nag zaawiya cheikh Ahmad Tijaani la zaawiya cheikh ibrahima Niass la radiallahu anhuma ñun dañoo juddu rek fekk suñuy maam ak suñuy baay ci tariqa bi ñu topp leen ca itam wirde tijaan ci Ahmada Tijaani moo gis yonent bi ci lu du nelaw yonent bi sallallahu alayhi jox ko tariqa bii maam alaaji Abdoulaye bi muy nekk fii ñi jàpp ñi jotoon am lijaasa fii ci réewi Sénégal lijaasa yépp lijaasa yuñ tënkoon la ak Cheikh Mouhamad al Hafiz nga xam ne moom moo demoon gisanteeg Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu mu jox ko tariqa bi mu toog fa ñetti weer dellu ca réewi gànnaar te ba muy dellu Cheikh Ahmad Tidiane di ko eeb def na ko laa tazhar xatta yuzhiraka allah bul feeñal dara fekk yàlla feeñalul la ba mu demee jëfee loola ba jëmmi bés amir ba nga xam ne moo jiite seen gàdd ga dal di géwant ñu ne ko demal ci Cheikh Hafiz mu joxla ci yóbbal bi mu jëlee penku ci tukkeem mi penku ndax dafa jóge Makka jaar fa yóbbal biñ ko jox te ne ko bu mu ko feeñal feeg yàlla feeñalu ko ne ko mu jox la ci ba mu ñëwee ci Cheikh Ahmad Cheikh nga xam ne foofa ca baray na fa la njëkk la lay wasifa fii ci sowu jant ay setam ak góor ak jigéen ñoom ñëpp tey jàpp nañ ci Baay Ñas ay taalibeem lañ dawee ko ca Cheikhaani ba ci Cheikh Mouhamadul Hafiz doomam ji nga xam ne démb la jógee Medina moo rakkam Ahmadu ak seen rakk yu jigéen ak seeni i taalibe ñoom ñëpp fi ne ci calalaak baay gi lañ nekk te ci ñoom lañ cosaanoo woon wérde wi ci ñoom la cosaanoo woon bam ñëwee ki jiite gàdd gi ma ne ci ji jiite gàddu gi ba mu ñëwee ci Cheikh Mouhamad al ne ko liñ la jox te ne bu ko feeñal feeg yàlla feeñalu ko dama bëgg nga jox ma ci li nga jëlee ci sa yoonu penku mu jox ko ay jàllaabeeg ay dàll ay sëri ca makka daal mu ne ko déet li ñu wax ne bu ko feeñal feeg yàlla feeñalu ko loolu lañ moo wax mu ko loolu nag mooy wirde tijaan bu ma indiyaale ndax moom dam delloo ca gàddu ga daf doon jàng wirdaam rek boolewu ca kenn ba amir bëggee wante loolu am ñëwee nag mu jox ko wirde tijaan bàyyi ne na keroog benn kër ci baray na lu may wirde tijaan dugg na fa cheikh mohamad al hafiz moomu nag moom moo jox abdul karim nag abdul karim moo jox cheikh omar al fuuti ngeen xam yéen ñëpp Omar mag ñi fi njëkk a tasaare wirdu Tijaan muy maam Alaaji Abdoulaye muy maam Alaaji Abdou euh, Malick ñoom ñëpp seen calala yu njëkk mi ngi dellu ci Cheikh Omar Fouti moomu maam Alaaji nag ba mu ñëwee fii gis ne lijaasa yëpp lijaasa yuñ tënk la moom moo njëkk a jógee fii dem Fass dem wuti lijaasa lislaam ndax lijaasa ci yoonu tijaan ñetti façon la benn ñu may la lijaasa ngay joxe wirde wi rek te doo sant muqaddam wala ñu may la lijaasa joxaale la ndigal ngay samp ay muqaddam ci limite maanaam fukk ba luñ la mën di limité wala ñu may la lijaasa litlaaq ngay joxe wirde wi di samp ay muqaddam ci lu duur limite boobu nag moom amut fi woon mu jaral maam alaaji Abdoulaye mu jóg dem Fass ba demee bàyyi nee na ma mu ne sama bàyyi dama nekk ci zaawu yëba rek di ñaan yàlla ba muy dem itam ñeenti bëgg-bëgg moom la bàyyam amoon bëgg-bëgg yi mooy mu am lijaasa litlaq ci yoonu tijaan ñaareel bi mu doom joo xam ne dana nekk boroom jamono ñetteel bi bëgg na itam ci kurus ak Cheikh Ahmada Tidiane mu am ci ay per yu def ci kurusam bi ngir barke bëgg na itam ay kawari Cheikh Ahmada Tidiane def ko ci boppam muy barke mooy téere bu ndaw bi nga gis ci portele bi maam Alaaji def ko fii ci doxam ba mu dem moom waxut kenn soxla bàyyi na ne ma dafa nekk ca zaawiya ba di def ay tawasulaatam rek di ñaan yàlla bëgg-bëggam mu ne ba benn bés am ku ñëw joxoñ ko muqaddam bi nga xam ne moo jiite woon zaawiya bi ne ko su wasifa bi pare demal ca kële li ngay laaj mu jox la ko mu ne ba mu ne kooku mooy arabi ibnul muhib mooy bàyyi idris al iraqi mii fa nekk tey nga xam ne dundam passé na juróom ñun fukki at ba mu demee commencé wax ak arabi ibnul muhib kooku di réerantal mel ni xamut li maam alaaji di wax bàyyi na ne sama bàyyi itam werante wut moom ci ay ñaanam ak ay tawasulaatam mu ne ba moo nekkoon muqaddam zaawiye di ilimaani zaawiye ba itam ñëw na ko suñ wasifa ba pare nag ma topp ñu dem ci néeg ba ca kaw ci zaawiya ba mu ne mu topp ko ñu dem ca néeg ba ca kaw zaawiya ba mu ne ba tey sama bay waxut ak mu ne mu ne ko kunta tatlubu ijaazatan mutlaqatan fi tariqati tijaaniya haa hiya wa kunta tatlubu xabbaatin min sibxati cheikh li tabarruk haa hiya wa kunta tatlubu shuayratin min shahri cheikh Tidiane radiallahu taala anhu li tabarruk haajiya mu ne ba pare laaj ko ne ko ndax xam nga kala ebaloon keroog pour nga ñëw ci man mu ne sama bàyyi na ko man de xaw ma ko waaye gis naa daal eh, yére waa Fass yi la sol mu ne arabi ibnu muhib na ko zaaka cheikhu Tidiane waaw ndax daf na ko yaa ngi doon ñaan yàlla am ijaazatul itlaaq ci yoonu tijaan mi ngi nii yaa ngi doon ñaan itam am ay per ci peri kurus Cheikh Ahmad Tidiane def ko ci sa kurus ñeenti per a ngi nii yaa ngi doon ñaan yàlla itam ay kawar ci kawar Cheikh Ahmad Tidiane pour barkeelu kawar yaa ngi nii mu ne moo tax sa maam xalifa ba sama bàyyi ñib see ca yoonu woowa ci la ko doon waxee ne ko wazaara cheikhiya في وزارة شيخية فاس على كبر لكن يسوق حب الملاقاة ونال ذلك يقظانا وصافحه بحر المعارف ينبوع الكرامات وزار شيخي في فاس على كبر لكن يسوقه حب الملاقاة wanaala dalika yaqdaanan wa faasaxahu baxrul maarif yanbuul karamaat mu ne moo tax sama baay daana wax ne man su ma neexee sax ma ne Cheikh Ahmad Tidiane moom al ijaazal ndax la ko waaji ne ko zaaka Cheikh Tidiane kala kala ñëwaloon joxoñ ma la ne nga ñëw ma jox la lijaaza bi kooku Cheikh Ahmad Tidiane la ah mu des nag bëgg-bëgg ñetteel ñeenteel booba ñoom ma nga bàyyi ñoom bàyyi fële ci fukki at ak benn fële ca kër mu nekk ci zaawiya ba di ñaan ay soxlaam ba jëmmi bés digg bëccëg ci lu duur nelaw mu gis bàyyi mu taxaw ci xabru Cheikh Ahmada Tijaani bi mu xam ne ñaanam nangu na maam alaaji nag ci yoon woowa ba muy digg gis na gisante naag Sidi Ahmada Sukayri ja Sidi Ahmad Sukayri tam jox na ko lijaasa ne ko soo demee Sénégal nga wax nga wax Sidi Hadj Malick moom itam bind nañu ci laaj lijaasa bi nga ne ko ni nga def ba ñëw moom itam na ñëw jël si lijaasa mu ne sama bàyyi na ko sama mbokk la ci tariqa bi ak ci diine ji maqaam bu ma elloo ci tariqa bi rek moom itam elloo na ko soo ma soo ko soo ko joxee lijaasa mën naa ko koo yóbbu Sidi Ahmad Sukari def ñaari lijaasa bii mu mu taqdim ca maam Xaji Abdoulaye bii mu taqdim ca maam Alxaaji Malik e eh, moo tax maam Alxaaji bi mu fi ñëwee mu jaari Tiwaawoon yóbbu lijaasa boobu ko Sukari ja yónnee pour mu yokk ko Sidi Xaaji Malik ba muy ñibbisi ba mu fa toogee bay ñibbisi fekkoon na mawalaa ji gàddaayoon na réewi Sénégal dem fële ca yi Angale bàyyi ne na gannaaw moom rek rakkam yi tegu ci moom yépp ci réewi Angale lañ juddoo li ko dalee ci maas ak bàjjen jey ak ñi nga ñi nga ci xam ñépp foofu la juddoo bi mu ñëwee Sidi Hadj Malick gunge na ko ba Gosaas gii mu ne ba mu demee ba ak Gosaas mu ne ko sëriñ bi làmp jege ko moo gën sori ko na nga delsi ci réew mi tubaab yi soo leen soree waxtu bu nekk sa noon yi di dikk di di ne yaa ngi préparé yaa ngi def lii soo nekkoon ci seen biir ñu di la gis guddeeg bëccëg dootuñ déglu waxi noonu ci yow ba pare ne ko soo demee Kaolack na nga dem nuy ji commandant cercle ba pare itam Sidi Hadj Malick radiallahu taala bind bu borom ndar bolokaar borokaar leetar ne ko alaaji Abdoulaye ngi noonu di jaar Kaolack di ñibbi ci réew dama bëgg su ñëwee ko mu dëkk ak ñun ci réew mi ndax niñ ko soxlaa ñun jullit ñi ak ngir suñ diine noonu ngeen ko soxlaa yéen ngir àddina ndax fu mu nekk nit ñi dinañ fa ñëw dëkkale ko te su boobaa économie bi dana yëkkatiku dana yëngatu yaxam dana gën a yomb dana gën a développé itam te yéen loolu mooy seen wàll ci moom ba pare ne ba soo demee Kawlax na nga nuy ji commande nga cercle bàyyi mu ne sama bàyyi kooku la woon bi mu ñëwee Kawlax ne man de Alaaji Malik def ne naa nuy ji commande nga cercle luy commande nga cercle ñu ne ko mooy ki ilif dëkk bi ñu yóbbu ko fa ba mu demee nuy ji ko mu ne mu ne ko ñun dañ ñoo waxoon ne yow dangaa bañ tubaab yi mu ne leen dangaa ngaa bañ tubaab yi da ngay préparer waxtu nekk pour xeex ak ñoom mu ne leen man bañeewuma leen dara jotewuma ak yéen dara ndax seen bureau yi soxlawuma ko soxlawuma ko pour sama bopp soxlawuma ko pour sama doom ko la nag mu ne ko dañoo bëggoon a jël samay doom jàngaloo leen français te man li ma bëgg mooy li ma jàng su ma fi jógee samay doom itam doon nu ma ci mooy jàng ak jàngale ak liggéey ak jubal nit ñi jëm ci yàlla mu ne ko bindal mu ne mu bind mu ne mu ne ko léegi damaa bëgg nga war fii ci Kaolack fu la fi neex ñu may la nga dëkk mu ne ma walla ji nag man mënu maa taax dama bëgg rek ngeen may ma ma dellu tay ba ci suma tool yi ñu ne ko déedéet léegi dañoo bëgg nga dëkk fii ci taax yi waxtu nawet ñëwee ñu may la nga dellu ci say tool mu ne maam alaaji di war ba ci fii ci leew nañu seen mu ne tànn naa fii dañ ko mayee foofu mille neuf cent onze fekkoon na ba mu demee Fass itam jëloon na buum natt zaawee Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala naka la am pour su ñëwee def zaawiya bu em noonu waaye ba mu ñëwee booba man man amagut mu tabax lam ca man waaye bi bàyyi demee ba jot jotuwaayam moom tabax na ko ca na ko bàyyam natteewoon ca zaawiya bu njëkk ba loolu moo fa nekk te boobu ba léegi nag dañuy kër gi di wesaare tariqa Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala ndax sëriñ ba waxoon na ma walaaji ne ko sëriñ bu ko dugal xalwa ci këram ba mu ci xalwa ji ne ne ko gisal naa la doom boo xam ne fa jant bay fenkee ba fa jant bay sooyee mbiram àgg na fa mu ne sama bay naan ko bu ma wax benn doom waxal ne sama doom yëpp nañ mel ni kenn ko mu ne ko man benn laaj waaye jataay bii rek ñii jógee kanu ñii jógee tamali ñii jógee euh, kaduna ñi jóge Fass ñëw pour fekkee ci jataay bii ñuy ubbi tey ubbi zaawiya bi nga xam ne Babacar Thiam moom moo ko moo tëraloon première xeer bi ba di ko sàcc tey moo tax ma ne ñu ngi ndokkeel bu baax tariqa bi tey na ko bàyyi waxee woon ba mu nekkee kuus am na ku mu bindoon leetar xaritam bu mu leetar di ko wax ne maa ngi lay oo ci faylu bii dut pour nga ñëw yokkal ma mbooloo mi ndax fépp fu suuf si àgg rek faylu bii dina fa àgg tey tey soo demee Amérique ci wilaayaat yu bëree bëri ay zaawiya yaa nga fa soo demee Afrique du Sud zaawiya yaa nga fa am na taalib moom xam ne sax xeer na ba jëndal ma fa ñetti kër ma ne ko ñetti kër man lu ma koy defee ci sa Afrique du Sud ma ne xalaat ki dafa bëgg ma toxu ji za zaawee naa leen kër yooyu na ngeen ko soppi zaawee zaawee yaa nga fa soo demee ba Pakistan soo demee ba Inde zaawee yaa ci àddina bi rek soo demee am na ku ma téléphoné ca ne ma sëriñ bi maa ngi lay bégal juróomi zaaw yaa ngi ci màkk fi ne te ñëpp ay zaawee tijaan la te loolu mooy ne tariqa bii tariqa rasulullahi sallallahu wa sallam ndax maa ngi fàttaliku benn jigéen ci Washington dafa ñëw jël wérde tijaan ci man gannaaw bu mu delloo këram daal xam naa seytaane dugg ci xelam jax-jaxal mu ne kon nag balaa wérde wala muy wasifa la listixaar ba xam ndax wirde wi wirde wu yonent bi wala du wirde yonent bi mu ne ba mu listixaaree ba tëdd yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la gént mu jiite ko julli ba jiit julli ga ba mu salmalee rek mu yeew mu xam ne tariqa bii mu dugg tariqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ñu bëri noonu yu bëri ñu ngi attaqué tariqa bi waaye borom tariqa bi setal na boppam bu yàgg ndax Cheikh Ahmad Tidiane wax na ne ida samiatum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fa ma waafaqa fa xuzuuh wa ma xaalafa fatrukuuh Cheikh Ahmad Tidiane loolu la wax lépp lu ngeen dégg ñu ne man Ahmad Tidiane maa ko wax peese leen ko ak man ndaxam sharia su ko sharia accepté jël leen su ko sharia bañee bàyyi leen bàyyi daana ci teg ne peese ak mandaxa sharia loolu jëfi borom xam-xam la moo tax taalibe tijaan amut ngant ci ñàkk jàng jullit rek amut ngant ci ñàkk jàng ndax yonent bi sallallahu moom mi ñu indil diine ji baatab iqra moom la yàlla njëkk a ci moom te yonent boobu itam moo wax ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin jullit bu nekk rek muy góor muy jigéen sàkku xam-xam daf ko war tey ci lislaam tuut ne dafa am période boo xam ne moom lañ emale nit ki pour mu war cee jàng wéer àlluwaam dootu jàng période dund lépp waxtu jàng la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne utlubul ilma min al mahdi ila al lahdi na ngeen sàkku xam-xam fi ngeen génnee ci seen biiri ndey ba ba di duggee ci seen bàmmeel kon nag période yi dund lépp jàngukaay la Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne mooy suñu roy teef baa ngi fàttaliku suñ daa tukki ñi ngi enu téere yi di jàng suñ nekkee ci tool yi ñi ngi enu téere yi di jàng su nekkee hôpital sax ñu ngi indi téere yi di jàng ba ci xadis yi ñu ko mujj jàngal ca hôpital ba salaasuna xadisan alayha madaarul islam moom lañ mujj jàngal bàyyi ci téere al azkaar nawawi ca hôpital ba maanaam fanweeri hadis la lislaam nekk yooyu moom lañ mujj jàngal bàyyi ca hôpital ba dégg kon nag diine ji diine xam-xam la tariqa bi tariqa xam-xam la bàyyi bañ na ko ba bind sax tabsiratul anam fi anna al ilma huwa al imam nee na xam-xam mooy ilimaan kon nag ku bëgg a nekk njiit ci mbooloom Baye war ngaa jàng war ngaa am xam-xam l'islam bi rek ku ci bëgg a nekk njiit war ngaa nekk borom xam-xam tey jii biñ ñëwee ci barab bi di xaju ci zaawiya tijaan bi nga xam ne suñ mbokk suñ soppe Babacar Thiam moo ko moo ko fi sant ñu ngi sant yàlla bu baax di ko ndokkeel yàlla wax na ci alquran innama yaamuru masajid allahi man amana billahi wal yawmi al axiri wa aqama salata wa ata zakata wa lam yaxsha illa allaha fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin wa anna almasajida lillah fala tadu ma allahi ahadan yàlla wax na ci alxuraan ne ñiy tabax jumaa yi jumaa yi yàlla yi mooy ñi gëm yàlla gëm di gëm bés penc taxawal julli juróom génn asaka te ragaluñ lu may yàlla mën nañoo ñaamaana ñu bokk cee way ñu jub ña e bi sallallahu alayhi wax ne soo tabaxalee yàlla néeg na em ni fuuti prépp di boofee yàlla dina la tabaxal néeg fa moom ca aljana waaw ah. kon nag liggéey bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla def ko muy liggéey buñ nangu yàlla soppi ko ay néeg ca aljana ndax képp ku ci participer ñu ngi séntu ne yàlla dina la fay te su lay fay itam daf lay fay képp baaxam nga may leen néeg fa moom yàlla ca aljanna loolu moo ñu fi indi woon tey ñëw pour ndokkeel leen ci jàkka ji ndaw ñëw pour julli gi ñu fi njëkk a julli ñu julli noo koog yéen ñëw itam pour wasifa wi ñu wasifa ñu wasifa noo koog yéen di wax daay man ne wirde wii wirde yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la Cheikh Amar Tidiane dégg ngeen li mu wax bàyyi itam dégg nga li wax wax na ne ida saara xayru naasi sirtu waraahu wa in xalla yowman almasiru bàyyi bi mu ne ki gën ci nit ñi dox rek maa ngi ca topp su taxawee du ma seet fi wax na itam ne képp ku bëgg a nekk ak ci xaal bi ma nekk man na soobu yoon wi nga xam ne moom laa soobu ci wax ak jëf topp ndigal yi bàyyi tere yi ak waxtu wu nekk ngay nam jëm ca ngërëmal yàlla jëm ci ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi képp koo xam ne nag mi ngi oote ne dafay askanu ci man te topp ndigal yàlla yeeg yonent bi topp bàyyiwu tere yi waxtu wu nekk muy bët sharia bi di ko jalgati maa ngi leen di seedaloo ne kooku aw mag moom affaire waaw maa ngi leen di seedaloo ne kooku man ku set ci ay mbiram la maanaam aw mag moom benn mbir moo tax taalibe Baye taalibe Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu na nga nekk rek ci yoon wi nga xam ne ñoom moom lañ tëraloon Baye ñi ànd ak moom ñëpp ci loolu lañ ànd ak moom borom xam-xam yi ñi nga xam ne jóge nañ ci réew yi Gaana ak réew yi Nigeria ñoom ñëpp bi ñuy tas rek bàyyi fekk na ñu nekk ay sëriñ balal seeni daara lu tax ñu wàcc ci seen chaise yooyu ànd ak bàyyi dañoo gis ne mooy xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la dañoo gis ne itam mi ngi ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na feneen ci ay wayam ne fa in saaluni an habibi wa mazhabi ujib bi rasulillahi xiina ujibu suñ ma laajee kan mooy sa soppee kan lan mooy sa ngër su may toon sax damay wax ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sama soppe mooy sama ngër asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi lay